أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه بوكي فونداسيون مام الحاج روحان رضي الله تعالى عنه سين بوكم طالب سين خريط سين صوب عبد القادر غوم مولين دي نيو دي لين زيار دي لين بال حق لين كو بال نيان بروم بيال نيان يالا بولي جيغل nuyu ñëpp ziar ñëpp bàyyiwuñu kenn fa tabarakallahu di sàkku ci ñëpp ñaan di ñaanal ñëpp yàlla yàlla mawlaana tabaraka wa taala defal ñu jàmm ci réew def ko ci réewu jullit yëpp fa tabarakallahu ahsanul xaaliqina fas yéene dellusiwaat ci suñu bindu muqaddimatul izya tey ji tombeek ajjuma nekk fukki fan ak juróom ci weeru septembre muy le quinze septembre incha allahu ñu fas yéenee dellu si ci dars bi xam ngeen ni ajjuma yi yëpp ba tey ji mooy suñu juróom ñeenteelu dars ci miras ajjuma yi yëpp fa ci miras rek lañu ñu nekk tey ji moo ci suñu juróom ñeenteelu dars amaana it tey ji la miras mi di yegg ci suñu gàttub xam-xam ak suñu ñàkk fasaaxa waaye daal alaa kulli xaal xam ngeen ni ajjuma bi weesu jeexaloon ñi nga xamante ni mooy yi ñi ñu waroon def ñu ñu waroon yiir dootuñu doon ak ñu waroon a toxal ñu jóge ci cër jëm ci cër jamono yëpp ci la ñu nekkoon fa tabarakallahu bu ngeen xoolee page deux cent trente et ci lañu ñu war a nekk mu ngi faslun ñi nga xamante ni waruñoo doon ci miraas tey jii ñooñu la ñuy jàng te moo tëj bunt bi incha allahu yamnoo almiras ixtilaafu diini fala tuwaarisu bayna muslimin wa kaafirin xam ngeen ni dañuy tere ci miraas ñaar ñoo xamante ni dañoo wuute ci diine moo tax ñi nga xamante ni wax naa ko benn sama benn xale mu ni dafa bëgg dem takk benn tubaab boo xam ni daal ba léegi tubaab bi nangoogul tuub nangam sàngam ma ne ko ah boo ko fexe ba convaincre ko ci mu ñëw ci sa diine day di nga am ñaari tuyaaba mooy tuub loo nga nit mu dugg ci diine loolu tuyaaba takk nga ko yi nag boo ci amee njaboot alhamdulilah muy tuyaaba waaye risque la ndax ndaw si mën ngaa ñëw ci moom mu ëpp la bopp fexe ba yow mu détourné la bu la mënta détourné it ëllëg ngeen am njaboot yéen ñaar mu détourné njaboot googu yóbbu ko ci beneen diine donte lee lislaam may na la ko beneen bi ci des mooy sa njaboot ëllëg bu ñu demee ba màgg yi tamit ndaw si mën naa taxaw jëme leen fu ko neex te loolu aussi yow am nga ci responsabilité parce que bay bu nek mom moy responsabilité jël ay njabotam tek len ci yoonu njub kon maniko kon am risque bu reuy barki demb ben way ma ah man day sama ben euh, jigen da doon sey ak ko xamanteni yalla dogal na du julit maniko sey ba sax nak mo wirul far ndax ci l'islam jigenu l'islam du jóge fi dem di sey ci benen diine mu nak dem na sey fofa waja fatuna bayina fi alal judul jeex légui nak nan lay def alal jek njabot jek ma ni ko ah sëy amu fo won sëy sax nak mom dafa amul won ndax l'islam sax dafa consommer wul sëy bobu far waxuma la nak don nante baak yoy même tay ji budé ci benen côté bi bo bo amoon tay ji soxna so xamanteni ab chrétien la lum fi bàyyi lu mu bari bari bari bari wala muy nasaran wala amul diine bu yàlla dogalé mu faatu yow julit bi munoo koo doon moom munu laa doon loolu nag kenn xamul mu don kon dinañ ko tere fala bayna muslimin wa kafirin wa bayna al yahud wa nasara diggante yahut ak nasaraan koo ci takkit doo ko mën a doon wariqi ak jaam ba jaam di am kooku jarul ñu ci yàgg falaa yarisu raqiq wala yurasu kenn du moom du doon kenn du ko doon wama maata anhu wa huwa malikuhu bu fekkente ne dafa faatu rek ki nga xamante ni yàlla dogal na moo doon ki ko moom moom mooy jël alal ji yëpp daal di te beneen bi ci des it du doon wal xatlu ki nga xamante ne yàlla dafa dogal mu rey ab bakkan bu rayee ab bakkan ki mu rey te moo ko tay rey googu du ko doon moo xam baay bu rey doomam la moo xam doom ju rey baayam la moo xam frère bu rey frère am la moo xam ku mu mën a doon boo reyee nit te tey ko buñ koy miraas yow mi ko waroon doon doo ko doon loolu moom tamit day daal di féete bor wal xatlu fala miraasa li man qatala mu ngoog mu war risahu amdan dagam da ngaa rey ki nga xamante ni yaa ko tey rey ko bu boobaa doo ko donnu waaw bu fekkente reyu njuumte la nag may nañ la nga nga nga ñu nga nga jël ca miraas ma ca ndono la waaye dëy yi ji nga xamante ne dañ koy joxe nag ndeem yow kenn ko roy wala ngeen amoon kooku bokkul ñu war a joxe dëy dëy jooju ñuy joxe dik ko jote yow moom doo ci am moo tax mu ni ndegam dafa rey nit tay ko beneen bi ci des mooy wanti faa u nasabi bi liaan mooy dàqoo askan ci rëbbante te day am waaw jekki-jekki nit ki dafa tuumaal soxnaam ni ko doom ji juruma ko wala iyaazu billah doom ji nga yor juruma ko da nga doon njaaloo ba ñoom ñaar ñu rëbbante ba kenn ku ci nekk waat dama laa fekk ngay kii dama laa fekk ngay njaaloo boo ci jëkk ñoom ñaar ñu def li aan ci noonu bu doon amoon nañu njaboot nag lu njëkk loola njaboot gi moom daañu doon waaye bu fekkente ne nag ndaw si dafa jur doom waaje ni juruma ko bu boobaa aussi tamit ñoom ñaar bu ñu paree kenn du ci doonnante waa jooju tamit nag doom jooju tamit mënatu koo doon moom ci mënu ko doon ndax dàq na ko ci askanam mais bu fekkente dañoo def li aan dafa ni ko da ngay njaaloo tuumaal ko ndaw si ni ko njaaloo ma mais amoon nañu ak njaboot lu jiitu woon loolu njaboot googu bu fekkente waa ji dafa dee njaboot gi day ñëw doon waaj loolu aussi tamit na leer moo tax mu ni bi liaani ci rëbboo moo tax mu ni wala du faqat nag bu boobaa doom ja rek nag ci la yéeg bu fekkente ni doom ji ndaw si daf ca jëlee ëmb ci liaan bi bu boobaa doom jooju munta doon waaye bu fekkente nag jëlewu ci ëmbit nag ñoom ñaar daañu tas njaboot ga daañu doon nante waaye ñaari way rëbbante yii muy soxna si ak borom këram ñoom ñaar du ñu doonante loolu aussi ñu bàyyi ci xel bu baax beneen bi may wastiphamu al mutaqaddimu limu koo xamante ne ñoom ñaar dafa jiituwal mutaaxiru fil mawti accident dafa am yàlla nañ ci yàlla musal ni muy amee léegi ci jamono da ngeen di gis famille buy tukki ñu bari dugg ca biir famille ba dem baay dugg ca doom dugg ca ndey dugg ca jëkkër dugg ca ku dugg ca biir oto ba accident am bi nit ñi ñëwee di def secours di wattu fekk nañu maar day taal li ñu waroon doonante dee kenn xamul ku ci dëkk dee ñooñ kenn du ci doon sa morom waaye bu fekkente ni nag dañu ñëw di def dañ maanaam tey dañu ñëw tey di def secours di leen dimbali ñu fekk ca kenn koo xamante ni moom waroon na doon moroom ja mu nekk ci diggante bu metti waaye gis nañ ni faatoogul ñëpp xam ni faatoogul dontalee faatu na ci saasi kooka incha allahu dañuy jël miraasam mu mu donn ki mu waroon donn ba pare moom it ña ko waroon doon naat doon naale waale alal jooja loolu aussi ñu bàyyi ci xel mooy accident dafa am kenn xamul kan moo jëkk faatu bu boobaa aussi ñooñu duñu doon nante ma ngoog kama isa ma maata tax tahta hadmin ay jege ñaale ñoo faatu ci ni mu amee fan yii benn taax mu mabbu gis nañ ko ci Dakar gis nañ ko feneen mu bu ñu ñëw sulli leen gis nañ ko ca Maroc bi ñu sullee néew yi gis ni ah papa ak doom faatoondoo nañu kenn xamul ko ci kii ñoom ñaar kenn du ci doonu sa morom dañuy jël alal ja ñu yóbbu ko feneen ci ñi nga xamante ñoo ko war a loolu moom la boroom xam-xam yi tënkoon ci inch laka rizqun beneen ba ca des moom mooy te téere bi indiw ko moom mooy adamul istihlaal moom mooy xale bu juddu te joojul kooku moo doon waaw beneen ba ca des mooy chakku inch mooy chakku qablal mawt laam gi mooy liaan kaaf gi mooy kéefër laka rizqun raagi fa tabaarako wala dégg nga euh, raagi mooy raqiq mooy ab jaam zëy gi mooy zina wala du zina moom tamit xam ngeen du doon waaw du doon indi na coow yu bari waaye fan yi yëpp fa tabaarakalaaw groupe yële ñu bokk ña ngi ciy waxtaan borom xam-xam yaa ngi ciy wax ci miraaskat yi bu ñu ñëwatee fekk doomu njaaloo bu nekk ci biir kër mais war nañ ko mën a suturaal ndax moom deful dara yéen ñi nga xamante nii tamit nag yéen a ko seqit nag séral mais ngeen ngeen suturaal seen wayjur parce que lii lu ko gaaroon la ci ndawam mu dem ba yàlla jëlee ko fi mu am doom joo xamante ni judduwul ci yoon mais tëju leen ci biir nekk ngeen waxtaan xamante ngeen bu boobaa ca miraas ma ñu bàyyi noonu lislaam cëralu ko mais yéen ngeen wàññi seen i cër jox ko moom mu cëru te dem bu ko defee affaire yi ni tekk mu jeex moo gën ngeen ni ko doo fi doon xas seen bàyyi tama nga alaxira yokkaat ko bàkkaar bu bees ñu jël miraas mu yóbbu ko tribunal tey def nañu ñaari yu ñu lislaam tere mooy jël nañu doom ji yóbbu nañ ko tribunal maanaam jël nañu miraas yóbbu nañ ko tribunal ñu atte ko ci lu dul lislaam te wa man lam yaxkum bi ma anzalallaa fa ulaayka humul kaafiruun beneen ba ca des mooy donnuloo nañu doomu njaaloo te waxoon nañu buñ ko donnuloo kon def nañ ci ñaari erreur kon la def mooy yooyu bu amatee te ñu xamante ci suñu biir nañuy waxtaan ci suñu biir ba d'accord nga xamante ni sutura dina am ñu suturaal kii ndax moom deful dara dañ koo tooñ rek indi ko fi keneen ka ca des mooy wayjur bi nga xamante ne defoon na ko ba faatu uti ñu suturaal ko ndax am nañu bari ñoo xamante ne xamuñu ni woon ni kii doom ju jaarul ci yoon la kon bu ko deful dara dañ koo tooñ rek indi ko fi keneen ka des mooy wayjur bi nga xamante ne defoon na ko ba faatu uti ñu suturaal ko ndax am nañu bari ñoo xamante ne xamuñu ni woon ni kii doom ju jaarul ci yoon la kon bu ko defee loolu tamit ñu bàyyi ci xel muy ish laka rizqun kon ki nekkoon ci bind bi moo doon seen mbokk seen xarit Abdou Khadre Ngom yal na yàlla defal ñu dégg topp miraas maa ngi noonu nap nabi nañ ci suñu néew xam-xam ak suñu ñàkk fasaaxa ba foofu daal la ñuy taxawandi incha allah ndax miraas mi jeex na incha allah bu beneen ajjuma ñu jël bint bi nga xamante ne moo ci topp jéem a eggali téere bi incha allah fii ci Daara Nuurul Huda seen mbokk seen xarit